waaw loolu maa ngi ciy sant yàlla eh, teguma dara ci waxam ji mais dafa am loo xam ne man maa ko dund ak imam ndax saaba yi rawaw muslim ak loolu yëpp mooy fekkee rek te imam xëy na moom bu toogee di wax ci moom wax ci baayam lay wax ak kii de ci baayam lay wax ñu seytaane man yàq seen xol mën nañoo gisee ko waaye dafa nekkoon moom jëmm joo xam ne man de wax dëgg yàlla bëriwuma cër ci yàlla waaye nag danaa wax la Pathé Mbodj waxoon Pathé Mbodj doomi Salooli li daf doon wéy ne Pathé Mbodj doomi Salooli li séeréeri Mbodj yéen xamut yàlla de waaye bëgg na seeni barkaam man Assane Niass tamit de wax dëgg yàlla suma àll wa soriwul waaye bëgg naa imam Assane bëgg naa ko bëggeel koo a toog sax ci naa ma rus suma njaboot man fu moo tax damay bëgg a toog sax ci nit ñi toogee ci nit ñi nga génn gaam boobu gaa yi wax génn gaam te du may bëgg a génn gaam moom <coughs> dafa nekk koo xam ne man dama daan génn ci di topp bàyyi nas di ko wéy leer bàyyi mu tux ci imam ma génn ci di ko nettali imam mu ne ma yow Xasan yaay yaay yaay yaay méngale suma mbir ak mbiram bàyyi ma ne waaw mu ne ma xaaral ma yow jërëjëf mu ne ma xaaral ma ñëw imaam daal lii lay def ci jaww ji di def nii ci jaww ji def nii ci jaww ji ba gisatu ko sikar ba ma doon sikar ba tey fàttewu ma ma nekk leen ko benn kilifa ko gi nekkoon ci bàyyi tuuti ci moom ba pare nag muy dugg ci asamaan si dem mu ne ma kooku ne àdduna yëpp leen ko dégg li ma lay wax nii def na fanweeri at ak nangam boobu ak léegi may ñëw këram su ma ñëwee bëgg nit ñi di ma xaaye du ko gis may ñëw rek di ñëw rek di ñëw rek di ñëw rek ba moom ak boppam mu wan leen ne asan su um fi mën a fekk ci xàddina bàyyi leen moo xam gàmmo la moo xam siyaare la moo xam xew-xew bu mën a am medina suy lekk su ma ko farewul dañoo rek maa ko faree jàmm benn bés ma bind ko leetar wax ca leetar ba yu bëri waaye dama ñëw rek yokk ko ma xaar ba nit ñi dem Dakar dama asan kaay la ma sama baay defoon laa sa baay defoon mu ne ma sama baay daf ma noonu dama ko bindoon ne ma asan kaay yaa ko bind mu ne waaw damaa yow fi ne mu ne waaw ne jàng ko ma dégg moo commencé wax ja ne ko ñëpp ma fekk ci biir nit ñi rek wax ma ne wan ma ne maa yow far rek dama asal waaw démarche la rek man loolu rek laa bëgg nga defal fu mu fekkee daal ci nit ñi rek wan ma ne rek xam nga man tam yow ñoo fàq waaw xasal rek rek dafay def ndeysaan mu toog ba mu yàgg rek ndeysaan mu yëngal bopp bi dama daal santal yàlla ma taalif benn wéy eh, def ko ci kaset ñëw tegal ko ñu wéy ba ci kanam mu ne maa daal di daal maa di teg ne ko ah lu tax nga toog ba mu yàgg nga déglu wéy wi nga ne alhamdulilah. mu ne ma dama fàttali lu ma sama baay waxoon ma ne ko lu sa baay waxoon mu ma sama baay dafa ma doon xasan mu ne naam ba muy ñett yoon ma Medina su fi ñëpp kenn nga def si doy mu ne Serigne Aliou moo ko wax ma ko xasan Medina su fi ñëpp jógoon yow kenn nga def si doy te loolu ku xam imam xasan xam nga ne li may wax dëgg imaam ak baay xam nga. Amadou Diaw dafa taalif ci wéy wa ne bi bàyyi di génn àdduna këbir ne may waxtaan ak bàyyi bàyyi mel ni nelaw ba foog ne bàyyi dafay nelaw fekk na roog a dem naa ras këbir déedéet këbir fekkee wut imam Assane la fa fekk damay wax ne bàyyi ak imam comme leader ak leader la bii witt bii deful dara bi wittoon sotti ko ci bi defutoon dara teg ko nga ne wax kiif kiif moom ak bàyyi bon nit kooku ku doon sa kilifa am nga sas xam na yëf yi daal neewuñu la fii de billahi man damay wax toujours te ba bàyyi di bàyyi fa ruuxa ya nekkoon ci yow ma alastu bi rabbikum ba ñuy tànn doomam yeeg xeetam yeeg ñeneen ak ñeneen tey imam Assane xam nga ne roo caxaan mukk imam du loolu laa bëgg a wax rek xam na ñoom duñ ay ordinaire duñ nit yu ndaw tey jii xatam yi koo xam ne fanweeri at sax ma ko nga toog fii ñu yaay kilifa ñaam ci juróom-ñett fukki at ak téeméeri ñi am juróom benn fukki at man sax lu bën bën am naa fanweer te ñaanal leen moom mu yokku ah ñëpp tey nga nekk seen kilifa toog ci jotaay bi ñu teg la ci kaw waaye waaye fañ na tànnee moo tax ki tànn moo tax ki la jur a tax fii la juree juree waaye maa lay ñaanal yàlla bu la gémmiñ jàpp maa ngi lay ñaanal yàlla bu la gémmiñ jàpp yàlla nga am téeméeri at nag doog a gudd fan waaye nag foo gis soo gis barke bàyyi bàyyi dëgg dëgg man dama kontaan ndax imam moom man képp koo xam ne sóor nga ma ci danga ma ci yàq ndax moom rek laa bëgg na ko ñëpp nettali man maa wax ne man Assane imam moo ma gën a bàyyi ñes na ko ñëpp nettali ne Assane ko wax man maa ko wax ndax su ma jaaree ci moom ci lay gën a àgg ci bàyyi ci lay gën a jot man li baa yore parce express la moo gën a gaaw benn naan dafa toog yàgg mu gis ma ci xabro bi ni ma kaay boo buggee ci si sa dara ñi seen ngay jëtal ma ne loolu yëpp pour ci meew mi jël doom bi takk bi da nga rek nag wi yoxoñal la meew pour nga génne tey bi képp ku ko fekkee yaa ko wax yaa ko garanti te sa barke bàyyi nga toog da sukkandiku ci xadratul kursi moo tax képp ku naan doy bàyyee sëñ Tuba yaa nañu dimbale xamu yàlla ñoo la gën a xam yàlla foofu li ngay toog di wax naan adratu kuseeg ah, lépp dangay coow rek ko gën a xam. billaahi ñoo la gën a xam lu leer waaye kullu maqaanin maqaal. sharia bii mënoo ko jéggi mukk wax xaqiqa mënoo jéggi tariqa wax wax leneen loo xam ne bokk ci kon dëgg dëgg sa waxtaan wi teg ko sunna ñëpp ko mën a jëriñoo waaye nag. sa baay len jangulo xé da ngeen dem jang man bés bu muy genn aduna ceeb bi mu mujj nek man ma puus na ñoom yi nii parce que talaata laa ko wo ma ngi passi mu ne maa sal yow fo nek ñepp ñew nañ sargal si ma bi ma ñëwee gisuma la ma ko sé bi yëgu mo na ñew nga tey laa ko yëg na ma waaw subaa nga yow na ne ko am mu may xaar mo na waaw bi ma ñëwee ba ci bukki sa karam ma ko fekk mom ak imam cheikh ak cheikh maa yi ñu ngi tëral seen dal yoy moy waxane yu mag ñu jappé ñi nga am benn secret bu ci sét bi may dugg si benn aw sa na ma doo dugg ma ne ah garaawul comme sax euh, ci subaar jot na bàyyi ma def ci jumaa bi waxaab ba imam fekk ma fi keroog bii del si waatee ci kër gi moo ma wax moom ci làmmiñam ne ma dem naa ba fi àddina bi yem moom imam Assane moo ma ko wax ne ma Assane dem naa ba fi àddina bi yem keroog laa gis ñu def lu mas a def nañ firi rido yi nañ ubbi tukki yi bàyyi leen nit ñi ñuy laaj ñu ñëw am na ko jógee Kossy benn jigéen la mu indi fa ordonnance muur muur muur ki man na ko waxal bu baax li ngay wax bu ma ko déggul naka laa mën a faj sa fajee saa ji taw ma yow moo la tax a jógee fu jox ko xam na ko ko tudd Ablaye Wade mu ne ko bul a waxati mbiri Ablaye Wade Sénégal gii bu gisee ñu ngi mel ni Medina Baye bokkuñ ci Sénégal dama gis fi ñaar tamit teg loolu bu mu koy wax boo tolloo ci buntu kër gi sax da nga dégg baatam man maa ngi toog benn jigéen ñëw na ko imaam man de démb damaa ñoo seet si la waaye damaa fekkoon nga tëju mu ne ko su ma dënn kooku dafa nekk nit koo xam ne dema dema dem ñu naan imaam feebaru feebar na ndax bés boobu bi gor ba jàll di noddu tàkku saan man maa ngi taxaw man te taxaw sax bu baax nii la def sukkandiku ci ci minbar bi bi ñuy liqaam nii la def sukkandiku bañ liqaamee ba pare mu jóg kabar ba mu génnee na docteur Diop dama xaar ma ci oto bi ma ñëw keral la doon ubbi ji pharmacie ba fële saaral ñu gaar docteur Diop moom tey moom lañ dégg ci li léegi imaam bi man maa ngi taxaw lii yëpp ma lay am dama ko fekke biñ jullee ba pare ma ne man daal imam danaa ko wax ne buy tukkee fu muy dem na ànd man rek ma def ko rek la taalif ko fuy dem rek ma taalif bi ma ñëwee commencé woy gis gën na mbaa ngay si ak ñu ko buggee woon ndeysaan mu mu mu toog ba mu yàgg mu bi mooy léegi mu ànd ak docteur docteur wax ko ne ay garab sàngam a garab sàngam mu dem foofu ba pare ñëw. dugg këram yees lu dem ci jumaa ji bi demee ci jumaa ji la jiite timis ba pare wuti fa am na ñoo xam ne am na photo bu imam def nii ci xabru bàyyi bi photo wu ñu ne photo boobu mooy mujj ak photo imam déedéet photo boobu imam photo ko avant bés boobu noonu photo yi mujj photo wu yi ci bëri mu ngi ko photo ci clinique bi boobu xaama bi bàyyi yore Cheikh Baye Naar boobu imam mu ngi ko génnee mu nekk oto bu bees yu ci bëri mu ngi toog ci biir oto bi ma ñëwee ma ne waaw man daa xaaral ma dem rek tey la àllarba boo alxamisee ajjuma boo ma ñëwee dinaa ma imam daal ne ko boo jukkee jumaa àndal ma bi génnee ci jumaa ji ma daw kër gi pour xaar ko fa mu ngi mais dafa fàtte téléphone bi bi gi taxaw xam naa mu may xool ne ni ma bëggee rek daman tey damay damay yóbbu sama maa ngi taxaw mu may xool xool xool xool parce que dama ne ah xaaral ma dem ñibbi maa ngi waroon a am programme bu ma war a dem Gambie andi nañu keroog suma kër man kenn wax fanaan tëdduma ci lal ci saal bi laa toog biir dama pare toog laal seconde bi tëdd ci teg suma tànk la suma téléphone bi sonné ma ne waaw daaw nañ maa xool benn waaye mu ne ma dégg la xew ma ne ko la xew mu ne ma imam Assane la ñu wax ne génn naa ma man ah, mu ne ma imam Assane mu ne ma wal fajir wax nañ billaahi duus ba laa dem hubbi toog jot ci suba toog naa ci ci suba ci kër ma ne waaw man nan laay def fii xamatuma dara dara dara ñu may def ci àddina boobu ba léegi ne ngeen baal ma billaahi ku dee nit ku juddoo ko gën naqar nit ku judd loolu la yàlla def man dañ may nit ku dee ki ma koy wax sax dana wax waa est-ce que Assane mu ngi sentir billaahi dama koo sentirul maanaam àddina bi moo jeex.